Sa Thiès bu abit ne prix mu dal sama kaw duñ bëri deux minutes na taxaw rek fu ma ko jàpp lamb ji jeex. te eh, lamb ji bu ci amee ndam jàpp na yow ma xëy am ko fa amee su ma ko dirigé wu du ma dirigé. maa ngi maa ngi nuyoo ah di di leen gërëm di leen sant si seen teewaay yéen ah, waa Lutte TV ah. donc ànd ak guy gi ñëw sama kër ah depuis ce matin euh, pour ñëw euh, ziar si ma donc euh, may def rek benn témoignage bu am solo par rapport à moom si woote Seydina Limamou bi nga xamante ne moom wuyuse na ko guy gi sama xarit la guy gi sama xarit la et je le réclame il le aussi Cheikh Gueye moo tax ñu xamante Cheikh Gueye bële bu Naa TV yaa ndax na bu moom ma ko présenté mais jëfe na nga gis mbër jóg si bés bu mel nii seeti ki nga xam ne am di jàmmam la seeti ki nga xam ne xaritam la ah, def li mu def mm-hmm. ndax guy gi tey daf ma ziar si mm-hmm. bi ma ziar see mënoon na ñëw am lu mu séntu si man mais deful loolu dafa ñëw seet si ma témoigner xaritoom ak man yëkkati alalam jox ma ne ma grand ma la jàppale si bés bii donc loolu mu def ko ba pare def te témoignage bu am solo mais man Cheikh Gueye moo tax ñu xamante mais dama laa jàpp ngir suma maman Waré saar bi nga xamante ne yow ak moom da ngeen bokkoo PDS donc mu nekk loo xamante ne lu ma touché la parce que jafe na ngay gis mbër yi di déplacé wu ni euh, parce que moom xam naa ne du kuy déplacé wu lu bëri mais li mu def nii lu am solo la si man donc mu bëggoon témoigner loolu di ko remercier bu baax si loolu donc ñu ñëw fekk si appel bi donc naa Limamou moom wootee muy woote boo xamante ne yàgg na Seydina Limaamu mooy bàyyi Seydina Issa Ruwallaahi maa ngi la koy wax sànq bañ taxawee jàmmalaay ma ne la jàmmalaay fii booy gis ñi di taxawaalu fii di wax boo leen laajoon kan mooy Seydina Limaamu wala kan mooy Baay Laay dañ lay joxoñ photo bële bu maam Seydi bi nga xam ne moom moo am kaala bu weex beex bu ñëw bi ak biñ tàmm di gis ba si yow mii bi ma la laajee loolu nga ma wax nga ne kii laa foogoon mooy Baay nataal amul nataal nataalam doo ko gis naa Limaamu amul nataal doomam la fi bàyyi parce que jamononte wax ak ñoom sëriñ Touba ak El Hadj Malick ay mag ñu baax ñooñu fii lañ nekkoon mais moo leen fi jëkk bi muy woote ñooñu xëy na ki ñuy euh, maasel wala mooy maam donc loolu dafa baax sénégalais yi xam nga gëstu kan mooy Seydina Limaamu woote na lu yàgg fële sa soow ba ne man la woon démb ma a tey te si làmmañu boppam la wax ne aaji boo daaye laaye yàlla moo ma yónni si nit ak ginne mu woote mu woo nit ak ginne tey ji loolu moo tax ñu teew fii di ñaan senegal yàlla def fi jàmm parce que moom loolu la woote dafa woote wooteem bu màgg ba wax ne ñëw leen kaay leen ñëw leen te ba ngeen ba ñu ñëwee te am na xutba boo xam ne wane na ko wane jullit nu mu war a mel maanaam bu ñuy wax jixaat waxuñu jixaat pour mais jixaadu nas maanaam xeexax sa bakkan booy wax ngay wax lu li ngay wax mu nekk lu teey loo xamante lu sell booy lekk nga lekk lu teey bu ko defee Sénégal am jàmm may profité aussi di gërëm sama sama soxna Nabou Diagne bu nga xamante ne kenn la ci man parce que je le dis haut et fort dafa Diagne daf maa jàppale bépp projet bu ma nekk loxoom dugg na si tey jii woote na fi mu woote nii daf ko woote jël alalam ju bëri def si donc baax na loolu ma leeral ko mu nekk koo xamante ne euh, jigéen ju man góor la ku am solo sama dund parce que ni may jàppale baax na ma wax ko Sénégal gépp xam ko samay bokk tamit loolu lañ ko gërëmee sant ko muy soxna Nabou Diagne Naa TV di ngeen di dégg moom moo fa nekk Naa TV site la comme yeneen site yi mais moom moo fa nekk moom moo nekk di may alalam jox si man ba lii ma sol nii appel bi moom moo ko def si man donc ma koy gërëm di ko sant di ko wax na Nabou Diagne ma chérie vraiment merci encore une fois gërëm naa la sant la am nga lu ma mën nag dinaa ko def parce que yéene naa la lu ne yéene naa la du ne donc guy gi yi sama soxna la am naa ay soxna nag gërëm naa leen ñoom ñëpp mais moom particulièrement vraiment ku am solo la sama processus ak sama réussite par rapport à li nga xamante ne moom laay moom laay liggéey parce que bépp projet bu may dugg dina si teg loxoom dina si wax dina ma wax dina ma xelal ba ma ba ma jaar fi ma war a jaar parce que li ñuy wax derrière chaque grand homme y a une grande moom franchement taxawaay boobu la taxaw te nag ma xamal leen ne dama ko fekk muy lutter di xeex yor alalam sentuwul dara si man lu mu mën si man dina ko def moo tax yéene naa ko lu ne yàlla ko yàlla may gudd fan yàlla bàyyi maax moom ba bu ñu am benn ndog-ndog. waaw ah, chéri loolu daal laa amal lu may wax. li ma gën a neex si bis bi nag mooy guy gii ma seet si tey ziar si ma. ma wax ne jafe na mbër di jóg dem di seeti nit di fa bàyyi alalam man bokk si moom mi laa ko gisee parce que man ñi may seet ñi waraan seet si ñëpp bu ñëwee bu ñu dem dañu am lu ñuy xaar ma jox leen ko mais kii moom deful loolu le contraire la def dafa jël alal ñëw ne ma maa la jàppale si bis bi. ñu fekk ma si suba ba léegi ñu nekk defe naa ne sànq bi ñu àndee gis na romb nañ ay kilifa yoo xamante ne nii euh, présenté naa ko kilifa yooyu bu xam ne saa ay kil ñii ay kilifa nañ yoo xamante ne si dëkk bi boo ñaar ñetti kilifa ñeent boo dégg dañ leen si teg donc waaw foog ñu seede donc loolu mooy mu loolu nga xam mooy moo gën a neex si bés bi mm-hmm. ah, di leen gërëm yéen di leen sant waa Lutte TV par rapport à vraiment ni ngeen ñëwee mm-hmm. ah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw di sant ñëpp rek di julwaat ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur comme ni koy waxee di nuyuwaat uh, ahlu Laayeen bi yëpp waaw rawetina xalifa bi ak porte parole bi ak sunu grand frère sunu xarit sunu lépp sunu sëriñ ndax tey moom moo fi teewal képp koo xam ni ci ci Laayeen bi nga bokk parce que tey duñ mën ludul rek rafetlu moom tamit li mu def li def mooy biñ ñëwee xam nañ amul jot am na yeneen ñu waroon dox ay courses. mais dafa bàyyi yëpp wan ni guy gi rakkam la seet si na ko jël lépp jox ko te vraiment nit la koo xam ni euh, man man man royukaay la ci man quoi parce que bi ñu boolee comme ni ma ko waxee yow bi ñu boolee ba tey moom mooy nemmiku guy gi wala di ko teg ci yoon ak boole ko jël di dama ko defal di waxtaan ak man ku ma bëgg mu bëgg ko dinaa fa ay nit ay maintes fois wala ma ne ko kii dafa soxla lii mu jàppale ko ñoo dañuy dem bu mujj gi. man bu ñuy def dara sax koy nanaan sa grand-mère def na nangam def na nangam muy sama fierté di sama sat parce que mënoon naa tey nit ni ma mën a si laa mu ñëw seet si ko wala mu wax ak moom ni ma jàppee du ko jàppee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da koy def ci social man bi ñuy boolee seex seex seex Gueye moo ñu boole ñu ñaar ñu toog waxtaan bi muy dem ba mu yegg jeel bi jour boobu man tranga bi ma defal ci laa place baal la ñoom ñëpp laa woo gars yi na ma yow moom xanaa li la waa jox bari na ma ne ko man daal maa ngi ñibbi yéen dem leen ngeen toogi ne booba te amitié mi ngi koy sàmm te man xam nga ni du ma déplacé sax di seet nit wala man ne i kenn xamul ku dul Woré Sarr man seexuma ak yooyu mais dafa fekk bi ñu waxtaan ba yi jeexal nag ma li ma la gën a jàppee wax sama yaay lu bëri lu yaatu ma gën koo jàpp parce que kooku ko jàppal rek yow mën nga jàpp li ma ci gën a neex nag mooy soxnaam bii di nabu fi mu nekk di liggéey suma rakk Lamine Samba ak ku ci mel ni Cheikh Gueye taraang yi ñuy wax ci moom boobu man c'est la première fois ma gis Nabou mais nit ki moom loo bañ ñoo ko rek bu ko def wala ko appal bis bul xaar bo day ñëw da ngay dégg ñu wax ci Nabou loo xam ni vraiment ba personnel bi ñu fay liggéeyee ak moom ni mu koy jàppale effectivement lool lu mu génn ci làmmiñam la parce que fii góor goo dégg tey jamono yenn ci ba tey kuñ dégg la jigéen ku baax mi sa defe naa lim tax wax am naa ay soxna mais Nabou kenn la ci man waaw kenn la ci man mais loolu dégg-dégg la laaj ñëpp mu ñëw bokk nekk woon un un munul nekk day am un deux trois quatre fala sunu euh, kii l'islam yoon li ñu war a takk un deux trois quatre kenn ki no sax dayoo bul ni sëñ bi nee na mooy mooy premier dama war a nekk premier parce que kenn ku ne am nga fu mu la jëlee ba nga ñëw ci moom mais comme jëlee kii ba mu ñëw ci moom moom mi ñëppoon moom moom moom mi def ne kenn la ci man moom xam na ko Nabou xam na ko nit ñi xam nañ ko tey jii bu doon loo xam ni moom gëmu ko wala tey li muy wax nekkul ci biir wax sax day feeñ mais ci biir wax ñun dañoo ñëw fii fekk fi ay seere yoo xam ne mu jiitu na bu jiitu waxam yaayam ñi na mu nekkoon doon famem ak ñi waroon jot amul tax amul mais ñëpp kenn mënul dem parce que nabu moo xewal ak grand euh, grand la kon am na lum ji lum ji nit ñi loo xam ne ngor la ak ful fayda fii mun ngaa jël ay sa def defukaayu toogukaay nit mais ñi mënul leen kenn mënul leen luwe man je pas de temps au ma temps mais dinaa ko amal temps ngir bisam bi parce que tey boo bàyyi yow Lamine sa temps ñëw ngir man te yaa ngi doogante gisante grand bi kon defe naa ni loolu am na cër boobu man it cër boobu laa ko te fii ba suba bu ñu toog damay toog ak moom parce que bisam la te kilifa la koo xam ni tey boo àndoon ak moom tey yow yow yow yaa teg sa bët mi mi ngi ci kii maanaam Lamine vidéo kii nga ne ma noonu ñii doo leen jël te defe naa loolu ay preuve la yu ma wan jaraaf di dem nga ne ko taxawal nga ne ko nuyul guy gi fekk kilifa koo xam du ma tudd ne ko kii mooy guy gi. yooyu ay acte la yoo xam ne tey vraiment appel bi am na leneen lu ma apporteel beneen tànk boo xam ni lu ma apporteel loolu nag di ñaan yàlla rek grand sila li nga li nga dugg teg ci loxo ñu gën cee xam muy école bii nga tabax mu ngir jaamu yàlla yi yàlla na nekk ci école yi gën a kawe Sénégal te yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def parce que tamit yow lu baax rek nga ci jublu jubloo ci sal jubloo ci tamit leneen loo xam da nga koy jël di def sa poos ngeen dund dund dund ba am cent ans bu ngeen dee dee yàlla na yéex kii gaañu vendredi kii gaañu ci suba gi kii gaañu ci ngoon ngeen àndandoo <laughs> yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def parce que man lu nekk suma xol rek noonu laay waxee juste naturel waaw di nuyu tamit waa Lutte TV ñi nga xam ñoo fi ñëw ñoo men vraiment ñuy baax man fu ma nekk ñu ngi fa Cheikh Gueye euh, Mas Boga Lamine Samba suma rek xam nga bàyyi ma kenn daal koo xam ne fekk nañ la fi ak grand bàcc mi nga xam ne vraiment bi mu ak moo def lu baax am solo dañoo dugg rek kii ne ko xamee naa la depuis euh, bi nga nekk Pikine boobu maa ngi maa ngi yelwaan moo tax lu baax rek am solo yàlla ñu baax rek la boole di nuyu ñëpp du sant ñëpp di gërëm ñëpp daal vraiment jërëjëf. Sathies bu abit ne prix mu dal sama kaw duñ bëri minutes na taxaw rek fu ma ko jàpp lamb ji jeex. te eh, lamb ji bu ci amee ndam jàpp ne yow ma am na ko fa amee su ma ko dirigé wu du ma dirigé.